nekk dinañ mën a dem defi grève donc grève yi je pense que war nañu yërëm xale yi war a yërëm tamit parents wu xale yi mhm. ñu jàngale na serait-ce que même par patriotisme nga toll foo xamante ni mhm. sama réew moo ma soxla mhm. damay dem joxe li ma am donc jarul sax may déglu lii par exemple sama bëgg-bëgg wala sama soxla ngir dem di defi grève après pour revenir après man loolu laa contre c'est-à-dire que booy grève grèveal et renonce à salaire et vas-y jusqu'au bout ba nga am li nga soxla bu fekkee grève mois trois micro gosse c'est trois mois yoo xamante ni dañ ci waroon jàng après pour reprendre bu benn sëriñ waxee benn imam wax après ngeen bàyyi grève bi ngeen nekk fii di taqale nan la ñuy defaraatee année scolaire bi ngir mu normal wala ngir mu bañ a normal je veux ñu que war nañu dépasser loolu depuis depuis quinze ans ils font ça depuis 2000 ba tey ji loolu lañ fi nemmeeku mhm. et ñu bàyyi seen i intérêt crypto personnel yi ñu xool luy intérêt jàngalekat yi mhm. c'est-à-dire que c'est surtout ça le problème parce que boo xoolee boo nekkee président boo nekkee leader d'un syndicat. Il y a des voyages. bu ñu bokkee si benn euh, organisation syndicale internationale. Mhm. c'est des séminaires qui. il y a il y a beaucoup d'avantages il beaucoup d'avantages mais mais mais comme j'ai dit comme j'ai dit tantôt c'est-à-dire c'est un débat boo xamante ni mën nañoo fanaan ci télé bi di ko waxtaanee parce que fi mu nekk euh, njaboot yëpp la soxal je vous conseille d'ailleurs de lire euh, tey ci bind ci yéenekaay bi di Sud Quotidien alors bokk na ci ñu waxtaanee ah muy baisse du niveau des élèves Zeyna souligné na ko enseignement non qualifié enseignant plutôt non qualifié mm. absence intrant pédagogique euh, bëri na ci ay inspecteurs yoo xamante ni joxe nañu euh, euh, seen ay kàddu ngir jéem a xool naka la ñuy saafara jafe-jafe gi ci njàng mekk njàngale mi loolee ab dossier la bu am solo mën ngeen ko gis ci Sud Quotidien bu tey bu ko defee ngeen mën a àggali débat bi jëm ci wàllu njàng mekk njàngale mi beneen ponk boo xamee ni soxal nañu mu ngi jëm ci suñu ujaaj yi nga xamante ni ñoo faatu ca dëkk bu ñu naan Màkka foofee tey ci suba kaay bii di témoin mu ngi ñuy xamal ni lim bi dafa yokk ku ndaxte euh, roppalaan bu njëkk euh, bi indi commission bi biig la yegg si alors euh, ñu ngi gis ni bilan bi daanaka yokk na mu ngi toll ci fanweer ak ñett 33 nit ñoom ñoo ci faatu bokk na itam ñu koy liit ci xëtu yéenekaay bii di témoin lu tollu ci yeneen i néew la ñu gis waaye identifié gu ñu leen alors yow ban jàngat nga ciy def Adia Talla Euh, Pape Cheikh li nga wax par exemple euh, ci lim bi yokku na. mooy li ñu doon waxtaanee keroog. mooy bi ma lay wax que fi ñu toll nii àddina bi Sénégal. amul dara lu ñu mën a nëbb cest di que il faut il faut communiquer cest à que amul dara lu ñuy nëbb information information la ko joxe tu bi bi ma gisee tey par exemple témoin titre si il y a 33 morts léegi mhm. xam nga loolu sax dalay giifloo mhm. mais toog rek xamoo lan moo fa xew mhm. xamoo ñaata nit a fa dee mhm. ba fi ñu toll nii ngay ñëw par exemple aéroport di xaar sa mbokk bu war a ñëw te gisoo ko ça fait mal dëgg la xam nga boo waxee 33 rek déjà di nga xalaat ni man de ah 33 yi xëy na sama mbokk bi ma war a jël si par exemple suba wala gannaaw suba war na ci mën a bokk c'est-à-dire que moi c'est ce que je conseille tout le temps li may wax tout le temps mooy que communication léegi nit ñi dañ ko soxla askan wi daf ko soxla. Mhm. amul dara loo mën a nëbb cest à léegi àddina bi ñu gis léegi ni muy demee. Mhm. dafa nekk cest à que c'est tous les services. de mhm. la présidence ba ci suuf. ah dafa nekk dafa war a nekk une maison de verre. Mhm. amul dara looy nëbb. Mhm. parce que boo nëbbee rek dangay ngay da ngay gaañ askan bi sax dañuy dañuy gën di jaaxle. parce que euh, la dernière fois maa ngi koy wax yow tu en as parlé. ni il faut ñu joxe information bi surtout bu nekkee loo xam ni euh, daanaka mën nañu wax ni euh, lu metti la lu dal réew mi yëpp ah. il faut ñoom ñi nga xamante ni ñoom la ñu dénk mbir yooyu ñuy gën a joxe information yi di gindi surtout njabootu ñi nga xamante ni ñoom ñoo loru ci jëye jooju. li nga wax noonu la man je te dis que responsabilité dafay dalal xel ñu nga may wax ni am na ci dëkk boo xamante ni la dernière fois tu l'as ñoom seen diggante ak màkk defe naa euh, guerre bu yàgg la euh, dem nañu jëli seen i néew jëlee ko màkk mm-hmm. yóbbu seen dëkk euh, loolu même bu fekkee mënuñoo dekkilaat ñi dee waa dëkk ba ci sama xalaat seen xel dal na parce que sont en train se dire que seen i njiit jël nañu seen i responsabilité yi mm-hmm. ci war mm-hmm. te loolu xam nga loolu lan moo ko waral surtout. Mm-hmm. mooy réseaux sociaux yi. Mm-hmm. réseaux sociaux yi boo xoolee chaque jour. dañu am publier ay photo yoo xamante ne. si si sama mbokk diw de ba léegi gisaguma ko. lan la lan laay def bu ngeen ko gisee bu ngeen ci amee benn. Mm-hmm. Euh, information s'il vous plaît wax leen ma ko. parce que mënatul nekk. ba ci information moo mënatul nekk réseaux sociaux yi yéen nit ñi ci lu bëri. donc dama xalaat ni rek nguur gi nu mu def noonu la. sa à que si tu as des informations yoo xamante ni dafa concerner askan wi rek. joxe ko s'est passé à l'aéroport avant-hier moi j'étais sidéré bi lion yi lion yi di mhm. loolu dafa ñaaw. Ah. je veux dire que. nga jël ay journalistes. Euh, parquet leen euh, alors que la semaine dernière on en parlait. tu sais yaa ngi rappelé wu par exemple je sais pas ndax yaa ngi rappelé wu. Mhm. en mhm. élection bi balaa muy ñu mu koy ñu koy amal. bi ñu woowee Abdou Diouf. dans une émission que Sud FM avait organisée bu tudd xel xel li. bi Ndiaye Diop doon animé. Abdou Diouf à chaque fois qu'on lui posait la question il disait ah, loolu xaw ma ko woon. Mm-hmm. pour un président de la république mm-hmm. ça veut dire que ses collaborateurs mm-hmm. joxuñu ko info yi dañuy segg information yoo nga xamante ni moom moo ko intéressé loo xam ne da koy da koy da ciy rafetlu da ciy kontaan info yooyu lañ ko doon jox au lieu ñu jox information yu wóor lu ñu ko laaj rek moi j'ai suivi cette euh, suivre naa émission boobu mais lu ñu ko laaj rek mu ne ah man de xaw ma ko woon bu mun nee après bi question yi jeexee mu ne su ma fi ñëwaatee su ma gàñowaatee élection di ngeen gis lu bëri dina changer mm-hmm. alors que le coup était déjà parti les gens non pas parce que ñu ni mooy que dañuy nëbb nëbb nëbb nëbb nëbb dañu war a sensibiliser seen collaborateurs yi ñu wax leen dëgg mm-hmm. a des choses qui intéressent le peuple mm-hmm. buñ nëbb nañ ko wax cest à boo ko waxee rek boo joxee information yi rek lu bëri réglé nga ko di nga tax tamit askan wi mën a giif mën a comprendre si yan yi xam nañ ni nit ñi dee nañu dépendrul si nit ñi dépendrul si nguur gi bousculade moo am peut-être bu responsabilité di am autorité saoudienne yi ñooy am responsabilité la ñoom seen responsabilité mu ngi yamoon juste si pèlerin yi ñu fi bàyyi woon te demuñu màkk foofu ñoom la mmh. mais ñi dee fële

xarañ na trop ba mënatoo nëbb information da ngay foog ni sax nit ñi dañoo am radar si biir kër yi. Mm-hmm. di jox information surtout ak euh, réseaux sociaux yi. en de réseaux sociaux yamuñu juste ci wane photo seen parent yi ñu gisul am na ñoo xam ne tamit dañuy jël photo ñi nekk ci hôpitaux yi màkka ah, di ko posté pour wax ne kii mi ngi màkka kenn xamul naka la tudd bu fekkee famille am gis nañ ko mm-hmm. donc yéen ñi seen famille jël leen habitude dugg Facebook parce que am na photo yu bëri yu fa nekk yoo xamante ne. c'est des jeunes c'est des bénévoles yu nekk Arabie Saoudite je pense. c'est des étudiants effectivement voilà qui font ça en tout cas ñu mën a euh, loolu la ñu am tey euh, ci euh, yéenekaay bi di témoin ne bilan bi yokk na mu ngi toll ci 33 morts ak 10 corps supplémentaires retrouvés mais non encore identifiés donc comme dit Adia il faut que xibaar yi di jàll parce que nous autres comme nous disons xeeñ ndax réseaux sociaux yi voilà on finit ak leneen loo xamante ni ñu ngi ko gis euh, ci grand place ni euh, Sénégal champion ci li ñu tuddee indice Mo Ibrahim très rapidement loolu lu muy tekki may mun a ci fajar gi am na lu ñu expliquer en tant que économiste yow taskatu xibaar bi loo ci xalaat Sénégal am na place bu baax ci li ñu tuddee indice moo Ibrahim qu'est-ce que euh, lan lañ ci war a comprendre ñun sénégalais yi ci indice boobu la tudd Mo Ibrahim luñ ci war a comprendre mooy que ñun Sénégal def nañ ci ay jogo yu am solo mhm. moo Ibrahim c'est-à-dire que indice moo Ibrahim mhm. si lan lay sukkandiku mhm. mooy par exemple état de droit mu dox mooy par exemple développement humain mu am mooy participation aussi au respect des droits de l'homme mu am mooy tamit wàññi li nga xamante ni mooy xiif bi mu am boo xool ak sécurité tamit ci wàllu sécurité aussi ñu am si aussi ay jéego yu ñu ci def ça veut dire que nag bu fekkente ni ñun cité nañu si moo Ibrahim si indi si moo Ibrahim je pense que loolu lu ñu mën a rafetlu la cest à que Sénégal def na pas yu bari si mbir mi parce que du Sénégal kese aussi parce que boo xoolee Côte d'Ivoire am na ci Maroc mu ngi ci Zimbabwe mu ngi ci somali mu ngi ci mhm. Rwanda mu ngi ci boo xoolee benn par benn par exemple tu le cas de la Côte d'Ivoire mhm. Alassane Ouattara bi mu ñëwee jéem na jéem na dara ci biir Côte d'Ivoire jéem a rétablir état de droit jéem a réussir li nga xamante ni mooy réconciliation nationale jéem a tamit suqali économie bi Rwanda par exemple boo ko jëlee euh, Paul Kagame moom ñëpp ko xam moom c'est un gendarme donc dafa woote Rwanda yi au travail mu nekk un dictateur boo xamante ni mais dictature dans le bon sens parce que changé na jikko yi mbalit da ngay dox biir Rwanda biir Kigali doo gis mbalit mhm. biir Kigali doo fa gis mbuus parce que mhm. daf ko tere nee na mbuus kenn mënatu ko fi defar mhm. kenn du defar mbuus ci biir Sénégal sa à dire que ci biir euh, Rwanda ci biir yi donc yooyu yëpp réglé na ko léegi boo bëggee kii sachet këyit lay doon te boo pare ison léegi introduire nañ ko si seeni xel ba nga xamante ni léegi mënatoo tilimal réew mi Maroc ñoom peut-être demoon nañu ba pare quoi peut sax ñoom si wàllu droit de l'homme lañ leen di kiiwee mhm. mais <coughs> lu mel ni Somalie aussi même chose ñoo ngi def ay jéego yu am solo rawatina nag si wàllu euh, nu mu tuddati si wàllum kiif bi li mel ni Zimbabwe malgré li ko européen yi euh, Union européenne di xocc mhm. euh, parce que bañkat la mhm. mooy Mugabe mais terewul ni askan wi ànd nag moom ñoo ngi jëm a liggéey seen i réew donc ñu nit Sénégal teg nañu aussi ay jéego yu am solo muy ci wàllu démocratie mooy ci wàllu xeex droit de l'homme mooy ci wàllu tamit sécurité loolu yëpp moo waral ñu cité ñu si li nga xamante ni mooy prix Mo Ibrahim boo xoolee nag prix bi euh, indice bi njëkkoon a génn nag moom Sénégal dafa nekkoon ci ginnaaw ginnaaw île Maurice ginnaaw Cap-Vert ak yeneen pays la sous-région donc bu ñu defee pas yi tey ji xëy na dina gën a ñaax ñi nga xamante ni ñoom ñoo ji jiite ngir ñu def ay jéego yoo xamante ni dina gën a yóbbu Sénégal ci kanam comme li ñuy waxee dina gën a yóbbu Sénégal ci émergence moo Ibrahim nag lu ko taxoon a jóg mhm. saa à dire que moo Ibrahim tur la moom doomu soudanais anglais la mhm. c'est-à-dire que anglais Angleterre la nekk mais doomu Soudan la origine am Soudan la jógee quoi c'est un c'est un c'est un c'est économique parce que opérateur yi la yor mhm. foofu nekk un milliardaire parce que dafa gis ni que avenir àddina bi. Afrique la. Mhm. léegi nag mu ne xaaral ma ñaax africain yi. moo tax mu leen di saytu ci wàllu gouvernance c'est ça d'accord moo tax mu ñaax leen. mu ne mhm. par exemple damay créer benn prix. bi nga mhm. xamante ne dina tax ñu mën a évaluer par exemple euh, leader africain yi. ci euh, par exemple wàllu euh, démocratie. ci wàllu développement. humain économique social ci loolu yëpp mu ne léegi.

de dollars par ah, an. dañuy yokk seen point ba pare ñu am ci xaalis. dañ ciy am xaalis ci jiitu réew yi ci façon bi nga xam ne ñoo ngi koy jiitee seen réew yooyu réewu Afrique uh-huh. weesoo tamit prix initial bi mm-hmm. cest dire que di nga am aussi deux cent mille dollars mm-hmm. par an mm-hmm. et pendant toute la ak ay points yu yokk ci sa crédibilité yow njiitu réew yow mi waaw day yokk ci sa crédibilité parce deux cent dollars deux cent mille deux cent mille dollars dinañ la ko fay at bu nekk ba ba ngay dee a diriger. ba ba ngay dee nag da nga koy am amul retraite amul ah, dara. il faut bien diriger. sa poche la mais sa poche la. très bien donc donc ñoom Afrique yi. ils sont loolu defe naa lu leen di booster la. Euh, nañu gën a jiite bu ñu jiitee mu baax rek ñu am ci place bu baax ci indice moo Ibrahim. moo Ibrahim xalaat bu baax la am. waaw loolu yomb na suivre. nañ jéem a xool rek nu ñu développé Afrique. développé réew yi développé aussi de bi mooy Ibrahima. voilà daf ko war a ñafe. très bien daf ko war a ñafe parce que amul benn secret ñafe la rek. d' accord feeñal mbir yi. Mhm. toppatoo luy sécurité. Mhm. toppatoo luy développement humain. Mhm. toppatoo luy démocratie. toppatoo luy droit de l'homme mu sax fii. donc rek jeex na. voilà c' est sûr que dina ko am. voilà man c' est ce conseil que je lui donne. mais merci beaucoup Adia ñu ngi lay gërëm bu baax mais mun naa ngi yëkkati loxo mais xam nga xoj temps bi xoj nañu parce que tey Adia dafa yàgg euh, def na 2000 heures de temps je blague juste quelques minutes pour nous expliquer l' actualité euh, ñetti ponk yooyu nag la ñu waxtaanee woon tey ci Café Info Adia. Dia ñu ngi lay gërëm bu baax Pape cher gërëm nañ la mais Pape Cheikh tamit gërëm na la. Eh. merci merci. <laughs> allez ñu ngi ñëw léegi jàll ci publicité yi waaye laata boobu ñu fàttali leen ni daañu waxtaanee euh, peine de mort tey droit ak euh, Maymuna peine de mort juste un mot laata ñu ci dem. waaw Pape Cheikh tey euh, dañuy débattre ci thème boo xamante ne dafa lëmbe temps yi Sénégal ñi ñi mhm. naan war nañ ko dellu ci ñii naan waruñu ko dellu ci mhm. donc dem nañ seeti spécialiste suñu def tout ce qui touche son historique xool te peine de mort ci Sénégal éventuellement bu ñu ko bëggee def ci ban yoon la ñuy voilà quand di lan la ci euh, loi wax lañu ko wax ci kanam euh, boobu ba tey ñu ngi ci def ay commentaires ak euh, ñaawteef yi nga xamante ni moo am ci réew mi mais ku nekk di waxe boor lan la ci yoon wax ak may Maymuna ca kanam lay nekk et puis Mado ci wàllu bien-être tey da ngay des ci boppu jigéen ñi ñoom seen seeni collage ak seen i greffage ak Alfira dafa greffé waaw bon. <laughs> eh c'est pas naturel la def donc tu parleras collage ak greffage tout à l'heure effectivement on uh-huh. parlera des nouvelles techniques de collage qui vont servir de perruque tout à l'heure voilà et puis euh, yi ñu xewal ñi ma tuddee euh, pas ay fashion victime mais ay euh, ay des des gens qui vivent leur époque <laughs> mooy ñi nga xamante ni ñooy euh, ñooy xool li xew France li xew li xew feneen pour jéem ko adopté fii Sénégal grâce ak Bijou si on voyagera pour xool yi nga xamante ni mooy tendance on voyagera à travers capitale yu bëri parce que Fashion Week printemps été 2016 temps yi yëpp la doon am donc am na quelque tendances couleurs yu ci génn yu war a xew été bii di ñëw donc ñun mën nañ ko anticiper et puis parler de la tendance pyjama ah pyjama dafa xew pour liggéey jee ko dem fu la neex. d'accord ok ok et comment porter ça surtout. c'est très dur mais bon. d'accord ça ce sera pour yéen ñi nga xamante ne yéen a dund seen euh, époque pour ne pas vous appeler des fashion victimes donc <laughs> Bijou Sy fera le tour du monde euh, pour wane leen ak yooyu nga xamante ni moo xew bu moytuwulee nag man sac à dos laa koy def dama koy jël takkale ay tànk ak loxo euh, daal di koy odo et puis Kiara mu ngi ci ginnaaw parmi nous tey est-ce que xaw ma fii ah mais yéen ñii seetaan est-ce que mës ngeen wujjee ak étranger ak tubaab par exemple paraît-il paraît am na ñuy wujjee ak ay mhm. tubaab mhm. wala am na ñuy wujjee ak ces gens qui sont parmi nous Kiara am na gëstu bu am solo boo xamee ni euh, def na ko ci ni mardi bu jot euh, ci euh, parti boobu la ñu tuddee parmi nous Aïssatou Paye Fall ne sera pas avec nous ce matin pour ñu waxtaanee lépp lu jëm ci wàllu aada ak cosaan Alfie e la pour toggal ñu alors tey togg bi dafay am temps de defe na tout à fait Pape Cheikh recette salée ah. la ñu def avec les beurres Sofia mu bokk ci catégorie recette rapide Pape Cheikh on va réaliser des croque-monsieur mais au thon Pape Cheikh. voilà croque-monsieur au tout à d'accord on mangera tout à l'heure en attendant <laughs> tout ça ñu jàll ci publicité yi bu ko defee juste après on se retrouve pour la suite.